borom ndax sëriñ Abdou Latif ginnaaw bi muy tuut tànk la fi waajuram jóge bokk na ci jagle yi ko suñu borom jagleel sëriñ bi daf koo ràññee woon lool cheikhul xadim radiallahu anhu daf koo ràññee woon lool mu yaroo ci ak keppaaram ca njaareem lam daan def ca mag ñam nekkaloon mu ko daan def ci moom nga xam ne sëñ Abdou Latif fees na dell ak baatin te njëkk muy dem ca daara ja di jàngi alquran am na yoo xam ne du waxi rajo waaye it teewut bokk na ci it taxsis ak ak e, yi ko suñu borom jagleel boole ko ay kilifa yu mat sëkk kilifa ñu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna Cheikhul Khadim bokkoon na ci ñi méngoo woon ab yaram moom sëriñ bi moom moom sëriñ Abdul Latif ba nekku sëriñ Tuubaa wax nañ ne ca la dem ca daara ja fi ñuy wax waaye bokk na ci ay jagle yi nga xam ne sëriñ Tuubaa sëriñ Abdou Latif am na ko jagle yooyu bi fi sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu jógee Cheikh Mouhamadul Bachiru mu méngoo ay mbiram Cheikh Mouhamadul Bachiru kenn ku ne xam na ne ci keppaaru Cheikhul Xadim la yaroo donte sëriñ sëriñ bi mooy waajuram bokk na ci jagle sëriñ Abdou Latif yaroo gi méngoo gi nga xam ne sëriñ Bachiru méngoo woon na mbiram ba fépp fu ñuy jaarale doomi soxna ci am njàng ñu jaarale ko fa waaye fépp fu ñuy jaarale doomi soxna ak nit ku baax ci ak tarbiye ak tarxee it ñu jaarale ko foofa mu mat sëkk xam lépp loo xam ne doomi soxna war na ko xam waaye melit melo woo xam ne ak jikko ndax jikko mooy lépp solo alquran bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëggu ko ci ay waajur tëggu ko ci ay xam-xam bu mu am ci luñ ko tagg jikko ju rafet te jikko ju jikko balaa rafet nit ki danañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko kon sëriñ Abdou Latif bokk na ci jagle yi ko suñ borom jagleel bim ko booleeg sëriñu tarqiya sëriñu tarbiya sëriñu tasfiya koo xam ne li lim bëgg lépp dana ko am ndax kat mënoon na fee nekk ñoom ñu nekk fi te suñ borom du ko jagleel loolu ni nga xamee ne sun borom noonu lay jagleele nit hidaya mu gindiku kon sëriñ Abdou Latif su sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci ay jagleel jagle gi mu ko jagle ay waajur boole ko cheikhul xadim cheikhul xadim jógee cheikh Mahamadul Bachir méngoo mbiram ba lépp lu war a doo nekk ci doomi soxna mu def ko ci bi nga xamee ne defe na ci moom loolu lépp nag nit ki buñ ko jàngalee ba noppi dafa war a tare la mu jàng sëriñ Abdul Latif Cheikh Mouhamadul Bachiru jël ko yóbbu ko ci ay waajuram ñi nga xam ne ñooy ay ndijaayam waaye yóbbu ko fa ngir ne ñii kat dañ ay ndijaayam rek kenn ku ne xam na ne euh, sëriñ Abdul ba mu dem Kajoor ak Mbaakool ak li ko wër ba mu fay dem ñaari nit ñett la àndaloon léegi Kajoor gépp ak Mbaakool gépp foo dugg sëriñ Abdul Latif mbooloo mu dul jeex la fa am loolu lan moo ko ko may jikkoom ju rafet. ak la nekkoon ca moom mu delloo ko ca nit nit ña waaye nam fa nekk woon it dafa dafa nekkoon di jàngale ak di tërbiya ak di liggéey waaye nag nam daan jàngalee ak nam daan yaree lépp daf koo defoon ci xikma daawul forcer nit ñi daawul tiital nit ñi ni li yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk udu ila sabili rabbika bil xikma wal mawxidati al asana moom ak xarañte la àndoon ak nit ñi ak jikko ju rafet aku nooy nekk ci loolu ba sun borom dimbali ko nooyalal ko xoli nit ña foofa ca Kajoor ak Mbàkke ba kenn ku ci nekk sa jëmmu Sëriñ Abdou Latif la gën gënal bokk na ci nit ki ni muy yaree day defal defar boppam defar jëmmam ba ku ko gis bëgg a mel ne moom nga xam ne bu boobaa ngir nga yar nit ki bu boobaa dana yomb bokk na ci ay jagleem it biñ ko yóbboo foofa résultat ba mu fa wane waaye lool lépp it yëmu ca am si si ñaasan dafa laaj laaj bu am solo ndax sa yab latif dafa xëy rek di cant loolu lépp yëmu ca nekk na fa liggéeyal yàlla ba su borom defal ko fa lu yaatu ndax kenn ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne gindi kenn nit moo gën àdduna ak la ca biir waaye daf daan wax dee leen ma jot lil ci doo leen tisaare donte benn benn aaya la balliqu anni walaw aaya donte benn aaya waaye sëñ Abdou Latif dafa nekkoon ci daawatul islam yi nga xam ne eh, yaatal diine ji ak yaatal liggéeyu Cheikhul Khadim bi la nekk woon foofa ci Kajoor ak Mbakol ba kenn ku ne xam na ne liggéey na fa liggéey bu rëy rëy rëy rëy waaye yë yëmut ca loola mu xam ne kat nit ki ni mu amee kër ndey noonu la amee kër baay foofa liggéey na fi liggéey bu am solo waaye bi mu bi mu wàññi koo nag ci ñëwaat fii nga xam ne mooy fi la waajuram bu góor nekkoon daan fi liggéeyal yàlla borom Cham kenn ku ne xam ne ne fii la nekkoon fii moo doonoon barab yi nga xam ne ay xalawaatam fii la ko daan defee Cheikhul Xadim radiyallahu anhu sax wax nañ ne. wéet gi nga xam ne daan na ko wéet ba nit ñi daan am tiitaange ci moom di ko seet bu masaana wéet fii lay nekk fii doonoon na barab bu tedd bu mag boo xam ne barab bu jafe la bu jafe woon la mu mel ni ab denc la woon boo xam ne dañ koo dencaloon sëriñ Abdou Latif ni ma ko waxee woon magut ci waa kër borom sàmm waaye ñi nga xam ne ñooy ay magam ci kër borom saam it lañ war a def lépp def nañ ko ndax ñoo barab bi. di ko dundal di fi bay ba ki fi war daan nekk ñëw ñu jox ko ko te bi mu ko soxlaa it mu yomb lool suñ borom nag bu la defalee lu toll noonu dalay nattu ba xam li mu la defal yëg nga ko wala yëgoo ko ni ko sëñ Moussa waxee waaye kenn ku ne xam na ne sëriñ Abdou Latif li ko boromam defal ci ay xéewal ak fi mu jaar fépp yëg na ko ndax li wane ne yëg na ko dafa wax ne bi may jóge fii di liggéeyal yàlla xàmmeewu ma sama loxo ndijoor ak sama loxo càmmoñ bi ma dellusee ci barab bii sama doom bu bu solee uh, sama dàll mu jot ko te dara raw ma kon nag war na ma sant suñu borom subhanahu wa taala waaye war na ma sant cheikhul xadim radiallahu anhu lii mooy wane na kon Sëñ Abdou ci góor yàlla yi la ya gën a màgg ndax góor yàlla yépp bu leen seen borom nattoo nattu ya gën a métti da leen defal ay xéewal bu leen defalee xéewal it bokk na ci xéewal yooyu lam leen ciy nattoo boo xam danañ ko sant wala euh, duñ ko sant sëriñ Asan akasa jërëjëf sëriñ Mamor ci duggaat bu am solo lan moo tax sëriñ sant mu mel ne sa biiri wax rek dégg nañ ci baat bi am solo muy di wolof di wax naan ku ndigal taxa naaje boo jógee dabe kon loolu day la am solo loo xam ne euh, buñ ci sukkandikoo rek day gën a firndeel kàddu yi sëriñ Moustapha yi rek ci sant xéewal gi nga xam ne suñ borom daf koy defal nit ak lu xéewal ga niru lu ndaw jàppal ne moment yooyu nga ko am am na ñu ko xañ kon sant daal li tax ñu teg ko ci loxol nit ñi mooy finitionné jëf ndax yàlla de mel na jëf yi lu mu rëy rëy rëy faw rek balaa bala bala ñu koo valider nit ki day yëg ne xéewal gi kat ndeke li muy baax baax ci suñu borom la jógee ndax noonu ko alxuraan jàngale rek lépp lu jaam def lot na ci def ko waaye suñu borom moo ko may kàttanu def ko laa la hawla wala quwwata illa billah ali ashim waaye tamit su summa la tusaluna yawma isin ani nahim ab laaj la boo xam ne bu naqaree tootu lay doon ndax xéewal gi lépp ci suñu borom lay dellu si kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Jaxate mu del si waatal ñu ci sëriñ Abdou ak bis bii nga xam ne taxawal na ko muy sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ban joxoñ la joxoñ ñi nga xam ne ñoo di ak ñi nga xam ne ñoom la yar ci loxol boppam sëriñ Abdou Latif Jaxate sëriñ euh, Abdou Latif Aan xam naa ne day daal jege si nii rek bu sëriñ Abdou Jaxate wàccee kàddu gi rek mu daal di yëkkati quelque bayit rek ndax defe naa ne waxtu wi daanaka mat na ndax léegi ñu yëkkati jataay bi incha allahu rabbi sëriñ Abdou Latif Diakhaté bismillah jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ bi noo ngi leen di sant bu baax ci wax yi am na solo lool te leer léegi loolu nga wax sëñ Abdou dañuy ñëw ci maanaam ak maanaam gëmam ni mu gëme woon ci liñ ci mën a xam dañuy indi benn addis rek mu firil lu gëm ga yonent bi nee na woon sallallahu alayhi wa laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi loolu moom sëñ bi ku dund moom xam nga ne nim la yéenee nga jariñu dangay ngay dem dem a dem ba sax dangay defe ne moom nim la yéenee nga jariñu sax maanaam day mel ni nim la ko yéenee sax yéenewu ko boppam yow danga koy yége noonu ci nim bëggee nga jariñu ak ndam cay xëre loolu kon mooy firine ak gëmam yàlla matan na ndax yonent bi nee na képp koo xam ne natt nañ sa ngëm te la nga yéene sa bopp yéene ko sa morom sëg ni sa ngëm buñ ko nattee du mat loolu moom moom loolu suñ borom dimbali woon na ko ci loolu kon maanaam bu demee ba tey lii mën naa firis bis sant gii mu koy sant daal di ne nañ ko santale kon loolu mën naa firi ne li ko sëriñ Touba defal nun ñëpp danoo yée danoo yéene nu dugg ci biir moo tax mu boole na ci cant gi kon loolu ñu it war nañ cee am pas-pas war noo cee roy ci ay jukkoom ndax day mel ni gaa yu baax yi fu ñu leen di tuddee la tax alxuraan dafa wax ne la tax ñuy fàtt muy fàttali maanaam yonente yi seeni mbir ak seeni jaar-jaar ngir ngeen jële ca maanaam ak dëgër akuk sax ak maanaam ngeen maanaam xame ca dëgg te jële ca ak waaraate te mu nekk ak fàttale ñeel jullit yi wa kullan naqussu alayka minan bàyyi rusul li nu sabbita bihi fuadaka wa jaaka fi hasil haq mawisa wa sikra lil muminin kon loolu moo ci ëpp doole ci nun nun fàttaliku gi nuy fàttaliku sëriñ bi nan fexe ba jële ci sunkam gën cee dëgër nan fexe ba jële ci maanaam li nekk ci lu baax nu gën caa dëgër gën caa sax euh, xame ci dëgg léegi mu nekk waaraate goo xam ne buñ jógee fii it ba mu yam fii rekk buñ jógee fii dan danoo war a ànd ak moom di ko dundaale mu nekk fàttaliku it ñeel képp ku gëm yàlla kon nee na loolu mooy njariñul li tax sun borom di wax ñu fàttaliku ñu baax ñi sëñ Abdou dafa nekkan jëmm joo xam ne boo xoolee islaamam maanaam ci li nga ci bara xam rek maanaam dafa fonkan islaam fonk koo xam ne ndax nekk na maa moom ndigal lu mat fukki at ak juróom wala boog lu manqué tuutee koy manqué waaye bu fa nekkee bu ne jàkka ji saa soo noddee mooy ñëw jiite mooy jiite ci jàkka ji moo xam muy waxtu wu mu mën a doon muy waxtu sedd ak waxtu ngelaw ak lu mu mën a doon juróomi waxtu yépp moo ko daan jiite ci jàkka ji kon loolu ak lislaamam ku ne xam ne ne moom ku matan islaam la li ñuy wax ihsaan it kooku maanaam moom ni ci doxe woon ndax ihsaan mën nga ko firee ak taalube yaakaar naa sëñ Abdou Latif képp koo xam ne xam nga ko ci ak taalibe bi wala nga mu ànd ak yow dara dara dara lu néew néew yaakaar ak taalibe bi moom doo ko royati ci kenn waaye xanaa kuñ di dañ koy roy ci yow loolu kera sax am na lu ma ci nettali jërut ma ciy jaaraat waaw waaye moom kum yar foo dem ak bi moom doo ko roy ci kenn ndax àggan na ci doy dayo boo xam ne kenn kenn mënu mënu xanaa xanaa ku koy jot ngay wax waaye kenn mënu koo weesu waaw loolu koyit moom war nañ koo jël ci moom muy ak bi loolu nag sëriñ Seex Mbàkke mi nga xam ne moo nekk xalifa sëriñ Abdou Latif moom it day noo ngi koy xoole lool rek ndax maanaam lim gis mooy amut lum soxla amut mu bëgg moom lépp jox na ko sëriñ bi waaw maanaam dara lu mu am ci boppam amut mas am naa bis ma wax ko ko ne ko yore maanaam dara dara loo am ci sa bopp gisuma ko ndax lépp danga nga koo jox sëñ bi waaw kon day mel ni moom it tànk ya sëriñ Abdou du ma nga ca moom it noo ngi koy ñaanal aw fanam gën a gudd yàlla gën koo defal ak te loolu muy liggéey mu jot ci ngërëmi sëñ Tuubaa yoo xam ne nun ñëpp danañ ca xaj nun ñi nga xam ne it nun nooy ay taalibe wala muy sët yi nu it nañ góorgóorlu ndax képp koo xam ne day dañ lay tudd di tudd sëñ Abdou maanaam la séenu ci yow mooy ak njub mooy mën a yërëm nit ñi mooy mën a dimbalee mooy ku mën a muñ ku mën a jaamu yàlla loolu rek la séenu ci képp koo xam ne dañ lay tudd di tudd sëñ Abdou kon am nan sasu rëy rëy rëy kon góor góorgóorlu ci loolu te xam ne ah moom day lam war a def lépp def na ko ba mu mat léegi it won nañu yoon wa léegi dara disut nag lu du dox maanaam xam ba noppi nag te bañ a dox moom loolu moo ku xamut ñooyam boo gisee ñi naan euh, maanaam sëñ sëñ Tuubaa naan euh, inna lesi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin wala walaw afnal funoon mooy loolu xam te li nga xam jëfewoo ko amul benn njariñ kon ah ñu yem foofu rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf sëriñ Abdou Latif xam naa ne kon am na solo lool dañuy dugal sëriñ Abdou An rek mu ñëw ak quelques bayit rek ci sëriñ Abdou Latif bu ko defee daanaka bu daaneelee rek dañuy jox bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal jataay bi rek ku ne def kàddoom gu mujj rek ngir ñu mën a yëkkati jataay bi ndax guddi gaa ngi doxantu te macha allah ku fekk koo xam ne bind nga doon jël rek boo xam ne bu la amal njariñ la te nga doon déglu jataay bi rek jël nga bind mbir mu mën a doon nag ci àddina wax ko rek def du doy wax moom déglu lay laaj waaye déglu moom jëfe rek moo ci mën a topp ngir wax mën a am njariñ te li ñu fi dégg itam nag fu ko waay mën a dégge xam nga ni dégg nga la nga war a dégg kon sëriñ Abdou bismillah nu mu gën a gàtt rek insha allahu rabbi nu barkeeloo ko rek ci jëmmi sëriñ Abdou Latif jooju bismillah حمدي وسكري لمن كلي به سرى له رضا دون صوت هند سرسارا له سناء وريد واني بلا شقة مسقادني من بني ديمان أنسارا لله كل لدى أبار مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار خسقسدوا سيارتي فرحوا دارين أو سارا بسم الإله أبتدي وبالنبي أقتدي حب القديم أرتدي دويسر عبد اللطيف بسم الإله أبتدي وبالنبي أقتدي حب القديم أرتدي دويسر عبد اللطيف gis naa fi mbar mu jarawe te jara kañ te bari may yàlla ko may te mayu rëy trois di seex Abdou Latif fa innahu sayxun karim hibbun amimun wa halim nadbun sarifun wa alim kookaas di seex Abdou Latif koo ne seex bamba ko yar ba def ci moom ay mbiri mbir ba noppi jox ko seex basir mu àggaleel Abdou Latif mboolem fu nit ku baax di jaar ca jaaru waaye mata jaar jaar na jaar wu yee mi naar moom mii di seex Abdou Latif فإنه بحر يفور بحكمة ويستنير به لبيك أهل الكجور يما المسيح عبد لطيف ku fonk diine ak sunna defoon ngërëm ak tam ndaxam di jaamu yàlla mi ko moom yem naa Sëriñ Abdou mësula mooy yàlla ndaxamoo ak jaamu mooy seral xolam bëgg yonent bëgg daam kooka di Seex Abdou kurus ak alquran durus xasida kullaan saxoo sikar bayim samaan kañal ma Seex jikkoom ya day nuróoki der bu naat garab ya yepp ñor walaw na si waxtu fajar li jikkoy Seex Abdu Latif mboolem ku bu mag bi jur na kii jox na ko cër moo xam jigéen wala digóor kookaa di Seex Abdu Latif ngir lañ xamoo ci ay meloom tax ñu naw jikkoom ba di ko kañ te di ko jaaraama Seex Abdu Latiif lataafatoog samaatu xinaayatoog diraayatu wilaayatu xanaat la boole woon Abdu Latiif macha allah jërëjëf Serigne Abdou Hann euh, am na solo lool xam naa Serigne Moustapha dañ lay jox kàddu gi rek nga tàggatoo ñun ci kàddu yu mujj wax ji macha allah am na solo Serigne Abdou macha allah béy yooyu nga indi itam mënu ci war a ñàkk kon kàddu yu gàtt rek nga tàggatoo incha allah rabbi waaw alhamdulilah euh, jërë ngeen jëf ci li fi jaara dépp am na solo loolu macha allah euh, mu mel ni euh, li fi jaar buñ ko jàngatee dana am solo li waxtaanee mooy baatub sant kon nag sëriñ bu baax bi ne woon fii di Cheikh Abdou doon sant yàlla ak sëriñ Touba ngir sant yàlla jaamoo ko sant sëriñ Touba ci xéwal yi jaar moom ci moom. ñu nit nañ jaar ci yoon woowa mm-hmm. te mooy sant suñu borom mi ñu bind jaamu ko waaye sant Sëriñ Tuubaa it mi nga xam ne lépp suñu borom ko jaara ci moom waaye sant ko moom mi nga xam ne ñoo ngi bokk ci njabootam di ko liggéeyal mm-hmm. loolu day day war ab jaam mm-hmm. kon loolu lu moo tax bàyyi waaye fexe jikko yi newoon ci moom ñu fexe caa jël maa ngi wax mbokk yi xamaa sax téere boobu maa ko lesoor fii te dañu abdoulaye fii bind nañ bind naa ci téere boo xam ne mi ngi nekk téeméeri bayit ak juróom fukk ak juróom-ñeent ay waye la yaakaar nañu bari am am ñu ko fii bëgg naa ñu jëm ñu jëm ko taxee xool ko lañ lëmbaj ko la ca baax ñi wéral ko la ca kiiwul ñi defaraat ko buñ paree jëm caa jëm caa jëm caa jëm caa dox daal ci laa waxee woon bayit yi ci biir téere bi te mooy axlaaqu hada cheikh fi lmasuuri ahamu ma aatihi fi sutuuri kaana sëriñ abdu yumassilu alkiraam fi xulqihi alxasani innahu alhumaam lahu min almakaarimi alaxlaaqi maa yujibu annaasa ala ittifaaqi kaana mithaal aljiddi walazima iqdaamuhu ajaza zu diraaya badlu nada kaffu l ada xamlu l ada min alwara min xulqihi bi xitaza yooyu yëpp day jikko yoo xam ne buñ ko jàngale njaboot gi ne nii la meloon yaakaar naa waxuma la sët waaye ku dëkk saam ñu mm-hmm. ko lii fii mooy gën ci ci dëkk bi incha allahu taala mm-hmm. loolu nag mooy solos ndaje mi du wax nii rek dem de waaye mooy ñi xam cant gi mu woote luy cant mm-hmm. ñun ñi sant ngir am ziyaada waaye moom it mooy kan jéem a jaar ci ay tànkam bu ñu ni moom it danañ danañ raw la waaja waxoon ne jaam bi fa tashabbahu in lam takunu mislahum na tashabuha lil kiraami falaaxu na ngeen jéem a niru gaa yu baax yi doon di ngeen mel ne ñoom waaye nag jéem a niru ku baax loolu chance la kon na ngeen jéem a roy kon ñu ngi jéggulu ñëpp di balu xàq ñëpp lu ci dëng ci ñun la lu ci baax ci yàlla ñu ngi sant mbokk yëpp ñaan yàlla may ñu daje bi euh, jotaay bi at yu bëree bare bëri suñu boom nangu dégg bi barke sëñ te waxaa rasul jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf Serigne Moustapha mënul woon ñàkk am na solo lool sëriñ Mamor lan mooy nekk say kàddu yi mujj insha allahu rabbi ñu yëkkat jataay bi maanaam di sant bu baax a baax di sant sunu borom subhanahu wa ci moom it xéewal yu mag yi nga xam ne xéewale nañu ko nun euh, sunu borom ni mu xéewalee Abdul Latif xéwal yu màgg bam mu woote cant gi nu ñi nga xam ne dañuy tudd di tudd sëriñ Abdou Latif ak cant la ndax xéewal dafa bari ay xeet yu bokkut kenn ku ne xam ne ne am na jëmm yoo xam ne ay xéewal lañ sëriñ Abdou Latif ci jëmm yooyu la bokk kon nu nit ñi ngi santaat suñ borom bu baax a baax waaye ni ko sëriñ Abdou Latif mi waxee nettali boo mos a gis ci àdduna ñu koy nettali ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonente yi ko jiitu woon jiitu nañ ko ay at waaye kenn ku nekk alquran nettali woon na ko ak dundam waaye lu ko alquran waxoon laqad kaana fi qasasihim ibra ibra boobu nag ni ko suñ Mustafaa waxee moom lañ ci war a jàng nag li ulil albaab la ci la ci la ci alquran tekk mooy ñi nga xam ne am nañ ay xel ba noppi di jëfandikoo seeni xel kon war nañoo jël ay bind ci waxtaan wi jël ay bind ci dunduk Sëñ Abdou jël ay bind ci Sëñ Abdou ngir buñ mënt te mel ne moom it ñu raw suñuy maas kon nañ góorgóorlu bu baax ñi ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax ci xéewal yu mag yi nga xam ne xéewale nañu ko waaye di sant mbooloo mi bu baax a baax kenn ku ne xam na ne sedd na waaye bàyyi nañ yitte yëpp kenn ku nekk waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy sëti sëriñ Abdou Latif kenn kenn kenn yendalut kenn fanaanalut kenn noppaluwut ngir ñu am lañ bëgg loolu lu rëy rëy rëy rëy rëy la lu màgg a màgg a màgg la ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñu leen ciy sant bu baax di sant yàlla di ñaan yàlla sun borom subhanahu wa taala jataay yii ni mu rafete ni mu taaroo yal nañ ci jëlee ngërëmul yàlla yal nañ ci jëlee ngërëmul cheikhul xadim yal nañ ci jëlee ngërëmul sëriñ abdul latif te yal nañ ko deewee at yu bëree bari kenn ku ci nekk la nga bëgg sun borom defal la ko na ko bëggee bi jaahi cheikhul xadim radiallahu anhu jërëjëf sayidna asan jërëjëf sëriñ Maamoor am na solo lool noonu nga ko waxee rek ñaan yàlla doole ñu tawfeex sëriñ Abdou Latif kàddu yu gàtt rek waaw moom day mel ni lépp mat na li ñuy wax ak cofeel dafa doon maqaama mu rëy rëy rëy maanaam sopp nit ku baax dalay yéegal yéegee ci maqaamaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa toog na benn bis benn arab yu ñëw fi moom ne ko dama la bëgg lool waaye nii saxaaba yi def mënuma koo def ndax man damaa yor sama jur te nitug àll yonent bi ne ko almar u mahaman ahabba mu ne ko nit koo sopp te sopp ko dëgg ci sa xol yàlla dalay yéegee ci maqaamaam bu ëllëgee fu mu dëgg dëkk ci aajana fa ngay dëkk sopp googu nag waxuñu waxi kese rek mooy noonu ko sëñ Moustapha waxee ak sëñ bi bi nga soppee nit ki lim bëgg daga cay nekk lim bañ bu la ca kenn seen loolu mooy firi ak sopp waaye waxuñu ne nga ne sopp naa sëñ bi rek waaye sëñ bi jéemoo ko roy ci dara maanaam daana sëñ Saaliw bu mas dégg muy wax ne maanaam ñu baree bari boo nee roy sëñ tubaa nee na dañ naan ah man de sëñ bi bu ma ko mënoon a roy kon du ma fi ñëw nee na loolu yàqook seytaane la nee na sëñ bi manees na ko roy jot ko lañ mënut ku ko jéem a roy nag jéem ga nga ko jéem a roy ca ngay rawe say moroom kon nag na jéem a roy sëñ Abdou Latif kenn mënu koo jot waaye nu jéem koo roy wasalaam Abdou Latif kàddu yi moom macha allah gën naa jot gën naa mat kon mbokk yi jataay bi nuy amaloo ñu ko doon amale fii ci pencum saam di mu bokk ci waajtaay yi nga xam ne moom la ñuy defal def ci màggal yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal suba ku ne xam na ne it euh, jataay bi ñu ngi ko àndoon ak i rajo Mbàkke 100 point 6 Lamp Fall FM 97 point 4 te ku ne xam na ne itam lépp ci heure rek la tege ñoo te xam na ne jataay bi xaw naa retard tuuti waaye teewul rek ñu am compréhension bu toll ci ànd ak ñun jataay bi ba na mu mel ne itam ñu ngi ko ànd ak Rafah képp koo xam ne am na lu la rëcc ci jataay bi mën nga ko jàpp foofu rek ci internet bi incha allah ànd ceeg waar wi itam euh, di site internet boo xam ne itam bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi doon couvrir jataay bi kon xam naa ne dañuy sant mbooleem koo xam ne yaa ngi doon ànd ak ñun jataay bi ci mbooleem dégluwaay yi rek di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal la tawfeex lépp lu ci jub mooy li ñu jublu woon waaye lu ci dëng ci ñu ko doon taxaw doongu la gàtt xam ak ñàkk fasaha di ñaanal sëriñ seex ahmadu mbàkke sun borom defal ko tawféex xëcc aw fanam yokk ak wéram ba lim naal ci liggéeyal sëriñ Abdou mu amee ko na mu ko bëggee ak daayira bi nga xam ne ñoo taxawal lii ci ñiital sëriñ Moustapha Mbàkke ak mbooleem ñu mu ko àndal ñépp kon mu mel ne dañuy jox sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne itam ku xam sëriñ Abdou xam ko ak waajuram xam ko ak jëmmum ji mu war a ñëw ak ñun ci bayit yoo xam ne daf koy indi ci sëriñ Abdou bu ko defee foo ay kàddoom yam rek foofu la jataay bi yam insha allahu rabbi kon sëriñ Abdou Latif sëriñ Abdou mu mel ne sunu ku minuit li ci des bëreetut kon dañ lay jëppal kàddu gi rek nga daal di ñëw fu say kàddu yam rek ñu yëkkatee foofu jataay bi insha allahu rabbi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi tedd ñu ngi nuyu sang yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi wa te koo ci xool ni ko sëriñ Abdou Latif mu ne la sëriñ Abdou Latif fa tabarakallahu ah, dajale nañu fi nag kenn ci jàmbaari lislaam yi kenn ci ñi nga xam ni dañuy xettali jaam ñi muy sëriñ Abdul Latif ma jéglu bu baax ci yeex gee egsi ah, bi ma xëyeeg léegi dama nekkoon fële ca Tiwaawoon di dox yitte yi kër ga ba léegi may doog a ñëw ba tabaarakallaahu ñoo ngi koy jéggalu bu baax ah, sëriñ Abdou Latif nag dafa bokk ci góor yàlla yi nga xam ni ah, daanaka mën nañoo wax ni seeni takk ndeer ñoo ñëw dinaa ci joxe ab leetar leeral bu baax mooy nit ñu màgg ñooñu nga xam ni fa tabaarakallaahu seeni takk ndeer lañu yàlla yónnee boo gisee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni moom la yàlla yónni ci jaam ñi bu jullewaan ba noppi niñ koy defee di taaya bu demee ba ci baati seede yi ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan te moom mii wax mooy muhammad kon ana Muhammad kon takk ndeer la te kooku lu takk leer ci leeram nga la leere kon bu dikkee ni wa ashadu anna muhammad fa tabarakallahu kon da ngay poser question ni ana muhammad kon takk ndeer moo ñëw noonu la demee it xettalikukaayu jaam ñi Maulana Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul moom it takk ndeer moo ñëw fa tabaarakallaahu moo tax danañ ko roy danañ ko topp ci mbindam danañ ko topp ci digleem waaye na xamuñu lu doon nag ndax ab takk ndeer lañ yónnee takk ndeer boobu nag mooy takk ndeer bi nga xam ni yàllaa ko teral ba nga xam ni boo ko liggéeyee sa ajo faju bu la digalee nga def sa ajo faju muy meneen njàng moo xam ni kenn du ko jàng ci téere ñu di la ko bindal di la ko jàngal góor yàlla gi nekkoon fii nag dafa bokk ci ndono yu yooya fa tabarakallahu kon nag war nañoo sant yàlla bu baax balaa may dugg ci bayit yi fi may jeexale mooy wàccoon ak ñun ndax jëmm ju tol noonu bu fekkante ni bàyyi na fi ñoo xam ni waroomi xam-xam lañu bàyyi fi warooni waroomi am-am bàyyi fi ñu yàlla kàttanal fa tabarakallahu wàccoon ak ñun ndax waroom xam-xam bi ku xamul dana la xamal boroom man-man bi ku mënul dana la manal boroom kàttan bi fa tabarakallahu kàttan nga ko yàlla dénk dana ci dimbali ñi ko soxla kon nag wàccoon ak ñun ñun ñoo ci des ñoo des ci liggéey bi kon nag duñ def lu mooy ñaan yàlla mu yokk leeram ya te ñi nga xam ni ñooy deretam yiñ fi bàyyi itam ñuy ñaan borom bi tabaraka wa mu yàggal seenug dund lool te may leen ak wér te yàlla defal ñu wër sëggale ñu ñu am seen gërëm wa tabarakallahu kon nag comme yeex na maa dabe ma ñëw ci ay bayit yeeg yoo xam ni karbatoon naa ko sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax dégg nañ bayit yi nga tënk léegi wa tabarakallahu lépp a ngi ci ndax euh, tabarakallah lépp a ngi ci daal man nag dama laa xaw a ñaamu ndax man wolof laa def tabarakallah muy ay bayit yu ndaw rek yoo xam ni defoon naa ko bi ma koy def it dama koo def ci li ma gis mu di ko def ma di ci teg sama bët ak li ñu ma nettali loola nag laa bind man bismillah bismillaahi lay njëkk wax teg ca ngën ji jàmm ju sax yal na dal yonent ba ba tax sama woy wi feese ngërëm maa ngi ñaan bur yàlla ndimbal ak ubbeeku ak jàpp ndal ba ma way wali kamaal moom la sëñ bu mag ba gërëm taalubey woyub sëriñam taalubey woyu turandoom jantu réew mi mooy ki nu xam doomi moor jaara jëñu gëm boo xamul junj yi ma def dégguloot misaal ma ni faf sëriñ Abdou Mbàkke Latif mbégte maa ngi xawma kemam murit déglu leen ma ma wax mbir mi jar na jóg di ko wax sëriñ Abdou Mbàkke ku baax cay latiifu yaay sunu ndam mus la ñàkk genn jotam ngir wuti dërëm ak i koom sayxi bamba doy na ko koom banque baa ngi booy wuta am boo masaana seeru jëfam mbaa nga gis mu wax ba wedam ñépp maase naa ahanaam jikko jaa rafet ni bindam kenn mus la dégg mu wax wax ja xumbu mbaate mu wax luy safaanu digle lu baax ak tereet lu sànk ñoñam mus la nangu kiy lekk sax càmmeñu mburook di ko sex daf la naa gémmiñ bu ci sex ab càmmiñ nday a ko moom daf maa masa a jox ndékki jox ma mburu ma teg kaasu yor kaasu café bi ci sama càmmoñ yor mburu mi ci sama ndeyjoor def nii di bëgg a def nii mu jëkkante kook man ni ma bu jàlloon dara du la jar la <laughs> mu ni ma luy dem ci gémmiñ benn loxo mën na ko yóbbu muy ndeyjoor daal di lal mbubbam mu tedd ma ndeysaan di dagg ruusit yooyu kat xeebu ko muy ruus mu ni ma boo noppee nga jël kaas bi sa loxo ndeyjoor def nii loolu mooy civilisation moom moo ko jàngale mu ni ma boo noppee rek nga def nii tabaarakallah daana wax de leen rafetal seenu nekkiin di rafetal seenu lekkiin akamatal ku mu yar jox na la jikkoom boo dégloo ma wax li ma xam ci meloom ku mel ni ki moom mus la am moom raw na ngalam sëñ bi Mbàkke yaa bari ndam sëriñ Abdu Mbàkke Latiif yàlla moo ko mooñee Latiif moo waral meloom wa di saf leer gu yàlla taal ci lëndëm moom deful ku rëy te ëppul defulut ku tuut tasewul ndaamawul ba ëpp guddul laajal mag ñi mbaa ñi ko xam moom de taar ba jéggi na or melokaan wa day nuru nuru leer tuñ ye jib mu mel ni ki weer cheikh bu am xorom ma moom safaan du suuru xelam yàqkat du yootu jëfam moo ko ñoŋ te ci ñoñam moom kokam du dox ci lëndëm mus la dox lu dul lu rafet du ko wax du ëmbalu nit ab safaan du jóg di tawat roy na sëñ basiiru ba dem foo ko gis mu ree la nga bég moom melul ni ràbb ki dég bay jamee ka xaajale mbég tiis du ñëw ba soppi jikkoom hmm? alxuraan ameel na ko pay daara yépp daana fa xëy di joxe yi mbiskit ak i béy boole keew ki téere naxam bu masaana yegg ci njigal ñu nuyoo waxtaan ba àggal mu soññee joxe ti wéete dollu ba kurusam bu xëyaa jàll përi njaay seeti bàyyi moodu xëri njaay xaafis ba woon përi njaay maa ko fekke lii du lëndëm jàngal na may ati at nekk naa fa ay ati at ba keroog mu xëy fa tawat wàcc ab liggéey ñu weddam tund wépp fàq di ser sëñ ba yegg ci dëkk ba buur cheikh ba jox ndigal baay Mor Taala Njaay mu wutu magam fépp fépp def na fa yiw sëriñ Abdou jëf ja du sew taalibeem ya ñoo gën a raw jëf ja mat na donn na ndam daana dem ci lëg daramaan seeti doomi soxna yi daan taali jàngu ngir alxuraan aka sàmm woon ci dundam def na lii te def na leneen daana dem jurbel di fanaan foofa ngir dundal alxuraan am na seede ñépp a ko xam daana yendu kër turandoom sëriñ Abdou Dieng madi doom ci sëriñ bi moo gën a xam alxuraan de am na ci ndam yal na yàlla dolli leeram am na foofa daara ju mag man am naa fa at yu ma toog foofa moo woyta mën a fekk sëriñ du Dieng njaareem boo yeboo ni góor ga fa sàmm réew mi yépp ñépp a ko xam nde jëfam fu nekk la dem wóor na waa lappeeki tundam njabootuk sëriñ bi fi woon am na seen ngërëm dafa daan jóg di leen ziyaara ka neel xayartu góor ga fa mus la wuute seeni mëbët daana wax ci ñoom lu rafet aw sasam la bay ba mu set yoon wi ràññi nañ ci jëfam kajoor ak bawol ba lingeer jàll saalum la ko wër ñépp a xam doomi maam Mor Jaara Mbàkke kay sunu maam sunu baay ba sopp na ko sunu tur wa jox na ko ko sunu ruugi fóotati ko may ñu xol bu leer ak i ngëm yaa nu tàggaleeg sunu tiis jox ñu ay dërëm yu nu fas may nu sag ba ñeewu ñu maas sëriñ Abdou yaa ma tëggam muy tiwaawan ak tundu mbir tundu pir def nga fiy jaloore yu bér wan nga ñuy karaama yu leer sancu pir xam nañ ko fa sunu maam ja saadi bu faal mas na def ci moom njébbal naa ko bis ruugi bés mu matal nang ma tiim ñaanal ma salaam ah ma jàll ma dem waaw sunu maam bu ñuy wax maam Cheikh Saadi bu kilifa gu mag la ci sancu pir fa tabaarakallaahu dafa nuyook sëñ bi jàpp loxoom nanguwu ko bàyyi daal ni ko dama bëggoon bis bu ma wàccee balaa maa a jël nag ma tiim wa tabaarakallaahu ba keroog wala boog ba keroog mu xëy fi matal ruuga rot mu wuy ji jalaal sunu bàyyi ba sëñ Cheikh Fall taal otoom di wër kafa dañoo dikk tàggee ko ko ni ko maam Cheikh Sadi bu wàcc na nit ñëpp riir wuti sañ ci moom mu taal oto bi di seeti si Abdou Latif ndax fekke na ko keroog bañ koy daalante ni suuf la fa ñëw daldi def fi daa u taxaw rob ko ñépp maase ni waaw sunu maam ji dem na ci ndam boo masaana sàkku ci moom ngërëmam ba jëf ko ci moom bu nangoo sa jëf jafa moom lee nga faw xayaw sa moroom mus la ñooru nit ci yitte lu mu tabje tabje du tee mu taxaw ba faj sa yitte nee ma gongo góor ga fa saam sëriñ Abdu Mbakke Latiif tab ga xeet na meññatu suuf meññetam du wex du gajaf du jameet ni sumpaki déem sumpak déem bala nga mus seen meñce meññet ay dégg jam la ba nga sonn tane dafa óomul waaye sëriñ Abdu Latiif melut noonu tabarakallah moom dundam gi daa dajale xeeti yiw yi moo matale mus la xam lu génn tele muñ na àddina ki mbiram dafa toog ci sama perongu wayjur tele bi wax ci benn bâtiment mu di ko dégg mu laaj sama bàyyi ni ko waa xanaa loolu rajalo mu ni ko loolu de ab tele la mu ko ah moom nu muy def day génne ay nataal sama bàyyi ni ko ay nit dëgg lay génne ñuy waxtaan ci seen biir yow mi jàkkaarloog moom it eh, dangay ngay dégg li ñuy wax mu ni cey ci ja jamono ba mu toll foofu jàkkaarloogub télé sax musu koo def tabaarakallah mus la xam ku lu génn tele mu na haddinaa ki mbiram moom dundam gi jéppiwu ko yaakaar yaakaari nit tasu ko buur bi yàlla fonk na ko sëriñ bamba xam na jëfam yow ma lis nay ni la dëddu yow ma yawma lisnayni la dëddu xol yi fees ba raw satadoo tiisu bis ba ñépp a fuddu sang mbàkke ñibbi na saam ñaari fan ci ndey ji di koor ca la dem ñi réew mépp di buur wuti saam doom yi ma mar jaara mbàkke fekki na daam doomi bamba cheikh murtada moo ko ñaanal am na ridda ñépp naa ko xëyru ridda yaa ko yor fileeg fanu jëm sëriñ cheikh taawam ba taxaw uuf rakam ye ñépp taxaw yal na seenu fan gën law neel amine ndax te ñu am yaa allahu rabbul jalil yaa allahu rabbul jamil noo ngi ñaan nga dolli ndimbal sëriñ cheikh mbàkke rakkam fan wu gudd wér gu mate nañ ko am te mbég yi la te yàlla yaa di buur bi mate fépp lépp ñépp nga moom man sa jaam bi abdu latif maa ngi ñaan ci barke latif nga defal ñu mbóoti latif maag ku amin nañu am bu ñu rekki gëm bu ñu moy bu ñu topp waa jala moy xeeti tiis yi yal na nu moy may nu ndam fi ak fa jëm sëriñ Cheikh yaakaar yi du tas yow sa baay ba daa ma fës waaye yow de topp bi nga sas yal na buur ba teg la loxoom allahuma salli ala sayidina muhammad nabil umi wa ala alihi wa wa xadihi wa sallim man nga man